jàpp ci 98 milliards yi. <laughs> non pourquoi j'ai rigolé parce que y a eu tellement de scandales dans ce pays là que ba finalement. scandale yoo xamante ne duñu duñu duñu mujjee fenn. xam nga dama tubaab lu ñuy la mitri mooy da ngay dama dem ba yow buñ la jamee sax dootoo yëg parce que tellement tu en as reçu foofu lañ toll scandale yi am depuis 2012 jusqu'à aujourd'hui man nga xam ñaatal toll 98 milliards yi ñu wax nii. daf ci yokk rek c'est-à-dire un goutte vraiment de de plus dans dans l'océan des scandales c'est tout du leneen. eh mais est-ce que c'est à minimiser Serigne. non non je ne minimise non. pas. non dama ne cest dire dafa am sa scandale yu ko jiitu ba pare. le scandale kii nu ñu koy waxeeti euh, Covid baa ngi nii. Uh-huh. Covid bi moo tax quand euh, bu waxee daal ne euh, la réponse je crois de Mansour ñoom ne nañ jaar nañ ci ay yooyu c'est-à-dire que ñooñu dàquñu ne quatre-vingt-dix-huit yi ñëw na am na fu mu jaar. que ñoom dugal nañ ko ci banque boo xam waruñu ko fa dugal mais xam loolu tax ma ne la du du du lu bees euh, Clédor mm-hmm. mais Covid bi. Ah, combien de combien de ministères ont créé leur propre compte alors que c'est le ministre mm-hmm. Mm-hmm. la cour des comptes ñoom daf leen dañ leen ko reproché. ils ont rompu mais ku ci nekk yaay dem yow ubbi sa compte bopp jël xaalis bi dugal ko fa di ko rocc nu mu la neexee. combien ñaata jurul jeex. loolu amul de. si euh, tamit non si am na tamit. non loolu munul am na waaye tamit. Serigne Saliou waaye kooku ma ne la dans le rapport la tamit waaye tamit. bon ma la coupé parce que sànq ba ah, léegi maa non non non mën nga ma coupé sax. donc du ma ma coupé mais dama ne. li may wax. tamit euh, comment euh, dama lay bàyyi nga wax. waaw mais xafor non mën nañ mën nañ la. c'est normal dama li ma wax. waaw man dama ko lire dans le rapport. d'accord la cour des comptes ñoom dañ leen la cour des droit ngeen ubbi seen compte di fa def xaalis bi uh-huh. ko kay le su vérificateur ñoo ko léegi ma leeral la foofu en matière de finance publique benn ministère amul droit ubbi compte waaw amuñu droit loolu tax mu nekk ci rapport bi déglul déglul uh-huh. li muy wax dëgg la ci rapport bi parce que ci Covid on était dans un régime spécial. et que y a des ministres non non non non non non non non non non non non non non dañu wax ñu leeral aussi mais boo nee ñaata ministère ñu ubbi ay compte ci banque yi wala loolu mënul nekk si dama ne la ci rapport Cour des comptes ci lu Covid ah il y a eu ministère de la santé il y a eu le ministère de l'industrie qui ont été indexés ci ay comptes yu ñu ubbi alors que amuñu ci droit et effectivement amuñu ci droit je te le dis. amuñu ci droit. et le rapport l'a signalé et moi je te dis amuñu ci droit. parce que finance mais kon kay yow tu je ne dama non dama non je ne dire non xam nga tam nag. non vraiment a déjà lu mel noonu dama ne lu mel noonu déjà am na moo tax ma ne kon bu amee tey avec sëñ Mansour. Mhm. tamit duma bett. mais ñi fi am ñi ko def ñu ngi wuyu ji dig de. waaw waaw mais ñu war a wuyu ji dig de demuñu. ña fa war a dem demuñu. <laughs> ñi lekk 17 milliards ñoo ñu war a dem. dig mais préciser ni encore actuellement. ñi ko def ñu ngi wuyu ji dig. mais ni ñu war a dem demaguñu. ña war a dem demaguñu ñi lekk 17 milliards ñoo ñu war a dem. voilà donc nañ bàyyi nañ bàyyi mbuucaa mbuuj yi nga xamante ne ñoom defuñu petit poids yi nga xam ne lekkuñu dara. d'accord waaw non mais ma ma ne oui donc. Mhm. wax la ne. oui. mbir mi. Mhm. bu fekkee ne yow dañ la wax quatre vingt dix huit milliards. Mhm. xam nga kii lu wax ne la lu lu la ci ministre. ñun kay li ñu doon xaar mooy ca jour ba. ñu am demande nga démenti ne lool dara du ci dëgg. ak des dossiers clairs. waaw ba pare immédiatement plainte comme ni ñu ko comme ni ñu koy gaaw a defee ak les histoires de journalistes là rak tak ñu indi plainte teg mais booba léegi les gens font le mort. te ñii aussi ils ont une stratégie de communication <laughs> parce que dañ koy juux bàyyi. Uh-huh. taxaw xool ndax dinañ wax wala du ñu wax. Uh-huh. léegi suñu waxee nag nga génne mbir yi teg ci taabal ji loolu moom stratégie la te j'espère que Mansour a bien compris ça moo tax ba léegi ñoom nanguwuñu àddu ci mbir mi. commission yi nag. waaw mais ñoom nag dañ ci war a wax cest à il faut ñu leeralal loolu te gis na nag Mansour aussi liñ koy jàm bari na Mansour Covid Mansour euh, ceeb bi. lu ne cest à tout ñu chaque fois on cite Mansour finalement Mansour moom daal parce que goro président de la république moo tax Mansour kenn du wax kenn du wax ci moom lu ko neex def mais ce régime la prendra fin un jour. il faut que loolu ñoom nit ñi xam ko. mais mënuñu teg cest à chaque fois moom lu jog ñu tise ko te jamais Mansour n'est entendu par la justice jamais. waxuma ne moo def mais au moins li koy si yëpp mais que ñu saytu ko xool ko ba pare déglu ko. mais jusqu'à aujourd'hui dara ça veut dire que daal léegi mooy quand on est dans l'entourage présidentiel waxoon naa ko fii. Uh-huh. fii daal boo fi amee beige marron carte cest à yow daal immunité nga am. loola <laughs> neex nga def bala neex nga sàcc bala neex nga duma. bala neex nga d'accord avec toi ah, si. <laughs> la preuve. Uh-huh. mën nga ma jox depuis 2012 ba tey jii ñi ñu sete ci ay scandale ban membre APR nga dégg ñu téye ko détournement de de deniers publics kan. alors que les nañ ma ci jox rek xool waxuma ñaar waxuma ñet dañ ne ma kii jàpp nañ ko ci lii jox ci benn su le régime dawaat mën naa ci joxe léegi nag bu ne way euh, Khalifa Sall ni ñu ko waxee ti léegi lan ko doon jàppe ci maire bi. Euh, caisse d'avance caisse d'avance Khalifa Sall un milliard et quelque ñooñu ñooy jàpp nañ ko. alors que fii ñuy tuumaal ay nit ay nangami milliards yu dul jeex. d'accord et puis les gis nga Covid gis bii. Mm-hmm. actuellement man waxoon naa ko naa leen le fait que ñoo bu ko dégg c'est-à-dire c'est la meilleure façon pour enterrer ce dossier là. ah bon oui. Mm-hmm. kan mooy dem dikk ku fay dem. tu penses que un ministre ministre dafa dem de ku fay dem. dage. <laughs> dafay dem cest dire ñamul ku ma amul ndey peut-être in fine on va prendre deux jàpp ci tëj pour pour l'exemple c'est tout mais ñi ñi tuumaal ay milliards ñu ne leen. milliards yoo xam ne dañ ko génnee d' abord ci loi de finance ba pare xaalis boobu ñu génnewaat ko encore ci Covid bi ñu laaj leen xaalis boobu lan moo tax ñu génn ko fii génnewaat ko fii mënuñu ci ton te ñooñu kenn doon topp loolu mu ngi ci mi ngi doon si ñëpp di ko gis. léegi nag bu ñëwee daaj yi nga xam ne ñi ay ay millions la ñuy lekk yooyu ma ko sax. mais nag wax dëgg yàlla les petites mouches waaw petits pois yi les petites euh, mouches. waaw d' accord alors les nañ jàpp nañ jàpp les gros bonnets moo gën. je reviens sur toi euh, Guèye l'original euh, euh, yéen a ngi toog peut-être ci ci benn benn affaire bu bu extraordinaire vous avez donné euh, des délais mais est-ce que jotul woon également euh, ngeen ngeen génne un peu pour leeral askan bi euh, ce qui se passe avant même peut-être d'attendre parce que vous avez attendu xaar ngeen pour ñoom ñu génn leeral kii bi mais defaguñ ko vous attendez quoi peut-être pour sortir justement ces ces documents là ak ces bien sûr de ces allégations. waaw mais xam nga mais est-ce que war nañ toll ci dugal ko déglu ma de c'est-à-dire que ñun dañ leen permettre ñoom ñu justifié wu waa Sénégalais yi le président Bougane li mu wax dafa leer que ministre Amadou Ba premier ministre Amadou Ba ah Mansour Faye nañ gën a leeral Sénégalais yi ci loolu donc on attend leur réaction parce que ñoo la gën a xam li xew bu fekkoon ne amul woon du ñu laal suuf ñun. woon ngeen teg tout sur la. ko teg duñ koy lu tax ñu koy teg noonu. lu tax du ngeen ko teg. parce que c'est de l'arithmétique. da nga leen di bàyyi ñoom ñu gérer seen situation patate chaude bi ñu jéem ko gérer ëff ko ba mu sedd ñu xool nu ñu koy gérer suñ ko génnewul ñun ñu ñëwaat teg lépp sur la place publique ñëpp gisal seen bopp et c'est ça et y a am na yeneen yu gën a garaaw. yu gën a garaaw 98 milliards am na yeneen yu gën a garaaw. maa la ko tey c'est-à-dire que Sénégal dañ ko dog dogatee. yu concerne yan ministère am nga tey souvent damay yërëm booy yi quoi. jeune hmm. jeunes quand su ne amuñu liggéey amuñu emploi parce que li ñu waroon nag. teg pour créer de l'emploi lépp gars yi randal nañ ko. rek a fi nekk de. et c'est dommage. quand aujourd'hui Sénégal foo laal day metti parce que li nga xam ne ñun dañ leen koy nattal wala li nga xam ne ñun sénégalais ñoo ko bokk ñun ñëpp teg ko seeni loxo dañ ko liggéeyul efficiemment dama exemple yaa ngi ne bu nu toogee ba yenn ñoo xam ne voilà ñuy sàcc sa kër nii dugal loxo rek génn benn neuf cent et quelques millions mais c'est extrêmement grave donc ñun dañu nekk ci suñu benn d'accord dama ne nañu génn ñu leeral sénégalais yi lii xew lan la xafoor maa ngi koy déglu c'est très bien ce que tu as dit c'est gravissime et tey ku jàng comptabilité jàng finance publique xam nga ne loolu <laughs> c'est pas sorti du néant boo gisee ñu génn ko teg ko parce que gis na xam na ne lii ay pratique la yoo xam ne tey jii c'est extrêmement grave dans une république qui se respecte quatre-vingt-dix-huit milliards du caaxaan un million sax du caaxaan et nous notre problème tey jii vous vous permettez à grande pompe ngeen di def ay meeting d' investiture et cetera investiture pour lan pour ngeen toog xaa ah, yéen da ngeen ñu bëgg a yóbbu laaxira benn yoon <laughs> ak suñuy njaboot et le seul et ça c' le combat noble aujourd'hui ñi nga xam ne tey xam na nii réew mi ni ñu koy salfaañe moo tax ñu taxaw xeex parce que ñun dañu bëgg un avenir meilleur pour nos enfants li ñuy dund bëgguñ suñu doom yi dund ko d'accord Euh, ñu ñu bàyyi Kader moom itamit euh, par rapport à cette euh, cette question euh, surtout jëlee ko ci côté euh, scandale yu bëri yi ak cette question sobre et vertueuse. waaw xam nga gestion sobre et vertueuse loolu la ñu Macky jaayoon bi muy doog yegg si te loolu aussi bokkoon na ci lu ñu gëmoon bokkoon na tamit ci li nga xam dañ koy topp léegi ci slogan yi benn bu ci nekk bu ñëwee en fait finalité bi day nekk scandale sur scandale. boo xam ne si les Sénégal dañ koy dund au quotidien léegi dem nañ ba fi mu toll nii dañuy xool bu ñu xëyee tey ban scandale mooy am ban cas donc yi actuellement ak son régime dañu habitué léegi ci ay cas cas de faits divers cas yoo xam ne si ne ni cas ci wàllu xaalis cas ci wàllu jëf donc tey li ñu soxla mooy en fait ñu xool corps de contrôle yi fi nekk est-ce que ñoom waruñu mën a am plus d'information par rapport ak li nga xam ne si ne ni moom moo di gestion wu xaalis réew mi mais du ñu toog ba benn Ousmane Sonko génn dénoncé pour wax ni am na ku sàcc pour que après ñu orienté wu ci loolu. mais mais par contre ces corps de contrôle euh, dañuy def ce qu'il faut. sauf que day dem ba benn instant.